léegi ñu ñëw léegi ci <laughs> euh, euh. ci li nga xam ne xam nga euh, mm-hmm. coowu koppar googu mm-hmm. ñu doon wax <laughs> man daf ma def ay ree mm-hmm. parce que mardi xam nga le comité exécutif mardi la doon réunir waaw dégg nga coow li am na kenn ku ma ko doon wax mën na ko gis nga Sénégal dañuy yëkkati benn affaire après fay ko waaw dañoo ay ci loolu ñoo aay ci loolu coowul koppar googu fay nañ ko. ñoom ñoo xam nag nuñ ko fay ñoom ñoom fexe nañu ba fay ka et pourtant indi woon na coow lu rëy loo xam ne ñoom jàppal bàyyi jàppal bàyyi xam nga lu tax xam nga Moussa Ba maa la doon wax lenn. lu am solo loo xam ne nit ki booy réclamer dara sooy réclamer dara. Mhm. gis nga bu fekkee ne noo dëgg dëgg danga nga ko mérito da ko liggéey. Mhm. di nga dem jusqu'au bout. dëgg la ñu xante dëgg rek. bale passé maa ngi leen koy wax di leen di wax ne que ñii nekk di yuuxu xaalis di nangam ah, man boog man man man am na ci ñu bari ñoo xam ne mérité wuñu ko parce que liggéey ñu liggéey boobu xam ne ñoom ñii war nañu toog di yuuxu ci xaalis et tey ji ñooñu. ñooy xëccoo. waaye tey ñooñu ci comité exécutif bi am ma euh, ki mardi. tudduñu ko. tudd xoolal ñooñu. Hmm. dañoo ñëw xam nga lan lañ wax par principe waa par principe da ngeen war a jël liste bi ah wane ko avant que ngeen koy joxe. xoolal loolu mu Ba. loolu voilà voilà wax nga moo bi nag. caaxaan bi nekk ci suñu football bi. caaxaan ak tappale bi. mooy parce que ay nit la ñooñu ñooñu di wax man d'accord naa. Mm-hmm. nit bu euh, maanaam bu defee dara. Mm-hmm. nga. jox ko mu mérito mhm. man loolu laa gëm am na ñoo xam ne Moustapha ñu ngi ci football bi mhm. def lu lépp dee ci dee ci te amuñu si dara te loolu souvent man ma koy toog di koy wax am na fi benn conseiller au ministère des sports lu mu voyagé yëpp Moussa mhm. lu mu voyagé yëpp musul am per diem déedéet musuñu kaa jox dara def na championnat d'Afrique basket football yëpp mosuñu kaa jox damay bañ wax turam rek. Hmm. ba woo bañ ko kii. Hmm. mais maa ngi wax. est-ce que jàpp ñu ne c'est un agent du ministère donc il fait son travail. non mais non yow. Hmm. yow tey jii ah man Cheikh Tidiane Gomis. bi may dem Kaan. du dañ maa jox sama per waaw ah waa. <laughs> ah même su fekkee sa liggéey nga doon def. waaw sama liggéey mais pourquoi bon d'accord. ñu moom joxuñu ko ñu jox ñeneen. ci ñu bëri ci ministère bi. waaw euh, problème am na. voilà loolu laa lay wax. loolu ñu naan problème yaa ngay démarrer jóg jóg ñu ngi leen di jox waaye kooku ci ministère des sports. maa ko damay bañ wax tur bi rek. jëru ko du ma wax tur bi. Mhm. mais noonu la amee tamit ci football bi. parce que bi ñuy jógee kaan di ñëw euh, deux mille dix neuf wax ma bii de mais am na ñoo xam ne mérité woon nañu loolu moo tax coow li di am. Hmm. waaye nag ku mérité wul. waruloo yuuxu di wax loolu moo tax naar bi mhm. ñoom ñëpp dañoo ne teg noppi benn wax lañ fa wax après jàll ci leneen fàtte nañ loolu kon nag ce qui veut dire mooy lan mooy que ñoom seen biir xamante nañ ñoom seen biir mhm. ku ci nekk xam nga sa morom xam nga ne kii pourtant euh, Chariane Goumi am na ñoo xam ne dañoo topp télé yeeg kii di indi ay leeral di wax acca nañu wax ñu ngi wax de acca nañu déedéet man invité naa ci kenn euh, tey. tey ñëwul mais mais gars yi ni Coro ni ñu indi lay leeral dafay yomb trop quoi c'est-à-dire que. Euh, mm. ministre muy ministre des sports Matar Ba muy Abdoulaye Sow le ministre de l'urbanisme vice-président de la fédération. muy Augustin Senghor mm-hmm. man gisuma ci kenn ko accepter un débat contradictoire ñoom dañuy ñëw teg ñu toog ñu toog di dérouler rek. waaw dérouler rek. bërki démb sax ah. euh, Maimouna Ndour. émission bi mu doon def ñett la ci boole ñoom la même chose. ñu bari ko doon kaas man démb rek woo naa ci eh, kenn ki nga eh, kii ma ne ko kaay. ajjuma wutloo naa la ci ba sonn. voilà mu ngi nii voilà merci. lan nga ma wax nga ne ma utal ci waa fédération ñu ñëw waaye du ñu def dañuy dem foo xam ne moo leen di arrangé nañu bàyyi loolu xaalisu askan wi la. xaalis bi c'est pas leur argent benn. même li leen fédération suuf yi la am comme xaalis fédération. Uh-huh. suuf yi la am xaalis état du Sénégal. Uh-huh. moo koy jox. Mhm. l' équipe nationale A. Mhm. bu dee équipe nationale état bee financé état bee koy jox. Mhm. la CAF et la FIFA. loolu mooy source am. fu mën a jëlee sax jaay seen image. xamuñu tous. waaw mënuñu jaay seen image. li Masara doon def defatuñ ko. mu ay waaw mais waaw mais waaye yow. Sénégal mooy champion d'Afrique. oui yow moment bii. oui boo jaayee moment bii ngay mën a jaay. mais mais heure bi waroon na am mmh. ngàndam boutique Sénégal xaw ma fédération lañ koy def xaw ma ngàndam boutique boo xam ne boo fa duggee am maillot Sadio Mané wala dàll wala écharpe wala bal. du dégg ah kaasu Sadio Mané. oui nga jaay ka. oui kaasu Bamba Dieng. oui ah kaasu Edouard Mendy. oui meilleur gardien du monde. finalement doon wax sànq ne jànguñu bawol bawol yi ak ñooy ñooy ñoo koy def. ñoom ñoo koy def voilà ah, léegi nag xoolal dañuy bàyyi. léegi sax boo bëggee ñu defal la maillot ak étoile. ak étoile ñu koy jaay actuellement dañuy bàyyi kii bi dañuy bàyyi champ boobu. waaw ñe boobaa ñëw. sama mbokk baaw baaw parce que sama mbokk jabar lañu dañuy ñëw jël ko <laughs> nga ñëw occupé ko. ñu commencé nag eh bàyyi leen. am leen droit di jaay ñoom ñoom maam Birame Waj ba wala ak man mi mais tey ji waroon na gis nga tey waroon nañ sax dem plus loin gis nga même le village de euh, Sadio Mané Bambali waaw état wu Sénégal waroon na organiser wu ba touristes yi di fa dem di tey ji am na ñu doon organiser woo les les les les angles là bëgg nañoo dem xool waa jii sa sa génie la. fu mu màggee parce que ñun Sénégal ñëpp dañuy wax naan euh, ci benn dëkk àll bu ne ca Sédhiou la ñuy wax affaire yooyu. Mm-hmm. mais ñoo bu ñu koy dégg ñun ñu koy wax les tubaab ils ont envie d'aller voir mais kii fan la fan la màggee où est-ce qu'il à jouer au football. ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ci équipe bi Moustapha dinaa la wax. lenn ci fédération football bii dama la koy wax. Mm-hmm. te jàpp ko bu baax li ma lay wax. daf ca am ñoo xam dañ leen jox poste. mais léegi kuy agent bi fi mu nekk nii. Euh, kii Louis Lamotte. Louis Lamotte waaw. ok ba ci euh, ñu demee. joxoon nañ ko fi Gaston sama nijaay. waaw waaw luy la bi ñu demee kaan bi mhm, kaan bii mhm. bi ñu fa demee. la première personne bu ma njëkk a interviewé ci euh, ci journal de la CAN moom la ba ma koy laaj. Mhm. parce que xam nga lu tax laa constaté. dama ñëw à Bafoussam. gars yi ci marché yëpp. oui gars yi di jaay euh, maanaam drapeau. yeneen réew yëpp. oui mayoo yeneen réew yi. gisoo gisoo Sénégal mayoo Sénégal gisuma ko di. ma ñëw di koy laaj ma ne ko ma amee mu ne ma non tu sais euh, les maillots nangam na mais laajte boobu wax ma beneen wax boo xam ne amul bopp amul génn. boo tax la nga ko laaj. ces petites moom laa lay euh, wax ce sont des gens. ils sont à la fédération ils ne travaillent pas. te ñoo ñooy réclamer tey ñooy naan non lii man euh, lu kii am man dama koy am. am na loo ci wax keroog ma dégg le ministre Abdoulaye Sow confirmer ko wax exactement la même chose. Mm-hmm. daf ne. ñiy laaj ay ay prime mu ne man mënuma comprendre ministre mooy wax de mu ne mënuma comprendre ñu jox prime ku deful dara mu ne koo xam ne yow bi ngay jógee dem Cameroun état wu senegal moo la fayal lépp nga dem tëdd hôtel di ataaya di di nelaw di yeewu su mat su jotee nga ñëw état bi moo lay daggal billet wala fédération moo lay daggal billet nga dugg toog tàccu sax doo ko def tàccu sax doo ko def après gars yi gagné ngay na la jox prime ministre bi laa dégg mbokk ma ne lii de Cheikh waxoon na ko voilà tu as xam nga créé wu parce que parce que dama nekk ak ñoom loolu kay moo ko wax li Ablaye Sow wax mooy dëgg gis nga ñoom nekkuñu fa am na yoo xam ne sax bu ma ko fi yokkoon sax Sénégal bu am màbb. day màbb waaw est-ce ko bu ko fi yokk de. voilà bu ma ko fi yokk <laughs> am na loo xam ne au oh, non de loo tax waaw damay bàyyi. <laughs> waaye dañu génn nee naa la mosuñu ñëw mosuma leen a gis entraînement. ñooñu di wax noonu amul kenn ku ma ci mës a gis entraînement entraînement ñi ma la dama koy répété waat. Mhm. ñi ma daan gis entraînement. di sonn di aw fii di kii moom mooy Cheikh Seck. oui Victor Ciss secrétaire général. Uh-huh. Ablaye Sow. Augustin Senghor ak ministre bi ñoom laa doon gis chaque fois. Euh, hmm. ki entraînement ñu toog nii di xool di kii. di wax te man li ma yaakaar Cheikh mooy mooy bu ñu constituer la délégation. Mhm. ñooñu nga tudd xam nga ñooñu mën nañu wax ne ñii lii moo fay seen njëriñ mhm. les agents du ministère mën nañu wax ne ñii lii waa douzième gaynde ñu ne lii ñii moo fay seen njëriñ waa ale casa lii lii moo fay seen njëriñ ñu mel ni ñoom El Hadj Diouf Tony Silva mhm. euh, nu mu tudd euh, nu mu tudd waay Diatta mhm. ñooñu mën nga ne ñii lii moo fay seen njëriñ parce que bu fekkee ñii ay adjoint wu Aliou Cissé lañ wala boog ay entraîneur yooyu ku mel ni El Hadj Diouf par exemple loo ko contre contre loo contre contre El Hadj il a mhm. eu un rôle à jouer mhm. avec les gosses bi ñu nekkee foofu mhm. euh, euh, xam nga football kat ñi xam football tuuti man xaw ma football duma ma mais ku xam football ak stress bi muy àndal xam ne avoir quelqu'un comme El Hadj Diouf dans le groupe ça met de l'ambiance ça permet euh, d'enlever un peu le stress mm-hmm. ne serait que pour ça sa présence man pour man bokk mm-hmm. ci li ma yaakaar am na fa solo même si El moom noo def mu am ay écart mm-hmm. mais au moins sa présence am na fa am na fa solo mais léegi nga gis à côté de ça nga gis d'autres membres de xaw de la fédération ou du ministère yoo xam ne man maa dégg ministre wax ko kenn nett liwu ko El Hadj nu mu tudd Ablaye Sow ba pare mu ne <laughs> hôtel la ñu tëdd hôtel ba stade ba. di noos daal ba pare boot leen ni am na ñoo xam ne sax dem nañ wuti sëriñ pour que Sénégal bañ a gagné. mais mais mais mais. mais ça c'est très grave. mais non attends dama lay wax gis nga interview boobu. man maa ko lire bu Ablaye Sow. man Ablaye Sow man liiru ma ko dama ko déglu muy wax te te boo bëggee ma taalal ko sama téléphone. non kaay dama lay wax benn affaire kaay dama lay wax benn affaire. Mhm. wala dama lay wax lenn loo xam ne gis nga. Mhm. Ablaye Sow. Mhm. boobu ngay wax noonu. man xam na moom xam na. Hmm. man xam naa moom xam na. Hmm. Ablaye Sow bi ma koy wax parce que maa ngi ko koy wax ci demi finale avant ñuy jouer demi finale bi maa ngi moom ñoo taxaw ci buntu euh, hôtel Lyon bi xam nga dañ doon ne ñu ne hôtel Lyon bi da ngay dugg nu mu la neexee. Hmm. <laughs> amoon na man demoon naa fa. Ablaye Sow sax daa génn pour maa moom ñu jàkkaarloo. kenn du dugg waaw kenn du dugg. Ablaye soow boobu laa koy wax ma ne ko Ablaye Sow ma ne ko euh, mu gis kanam bi xaw a kii noonu mu xaw kii. mu jax jaxasoo waaw ma ne ko bul tiit dañuy gagné coupe bi. ñu wax li ñuy wax ñu dem moom mu delluwaat dugg ci biir. boobu waroon nañ ko baar de. <laughs> waaw waaw waaw waaw comme dañuy baax rek. nañu dem comme ni waa jooju demoon euh, waa ji du tudd waaye doguma la de Moustapha xaw ma naan yàlla lay kese. ah waaw mu ne ñu koy baar nañu baar seen baay. dégg nga non c'est que c'est que Moustapha man li may waxaat dama koy waxaat gis nga nit nit lépp looy am na nga ko mérito mhm, mhm. parce que mënumaa comprendre ay nit yoo xam ne euh, seen hôtel duñu fa génn du ñu génn seen hôtel ci bunt bi la ñuy taxaw. te ñoo fi daa xalaat prime. non daa xalaat prime ci bunt bi lii Ablaye Sow wax dëgg gis nga ci buntu bi la ñuy taxaw boo ñëwee foofu du gaat nañ ci biir di lekk-lekk yu neex. Mhm. lekk yu neex amuñu benn problème. ñooñu à peu près ñaata personne la. ma ne bare nañu. ma ne doo dégg. am pagaille mais est-ce que loolu aussi du woon euh, photo fédération waaye tam ministère bi. déet non ñoom ñi ah, leen yóbbu. déet non attends ah ñi constitué délégation. délégation waaw non xam nga xam nga xam nga euh, par exemple man mun maa gis Moustapha nekk ci football bi pendant des années dégg nga may dem di yóbbu keneen di ko fii bàyyi. Mhm. xam nga loolu du ma ko def tamit. Mhm. foofu fédération. man li ma leen doon kaas li ma doon kaas ci ñoom ma leen da leen yóbbu ñoo xam ne ñu ngi nekk ci football bi. Hmm. bii pas ñoom loolu lañ def jël la yóbbu la tu yow maam comité exécutif. waaw mais yow boo demee am na ci kenn koo xam ne euh, euh, waa dégg nga bu ñu leen yóbboo ñoom tam ñu wax leen lii tax ñu yóbbu leen boo leen demee lii ak lii ngeen war a gérer. teg leen ci condition comme teg nañ leen ci condition yu baax. ci sunu xaalis lañ yóbbu. di tëdd hôtel di lekk ba suur naan ba maane. bu ñu leen yóbboo ne leen lii nga war a def ku ci amul loo xam ne am na lu ñu lay doyee biir Cameroun. Mm. moo xam yaaw ne moo xam Bafoussam. Mm. ñu bàyyi la Sénégal. waaw d' accord waaw d' dëgg dëgg boo demee ci euh, bu dee football la ñuy wax waa sport nga dem ànd ak équipe nga dem ne serait am na benn affaire bu ndaw rek bu ñu lay laaj del ñëw entraînement joueurs yi di lay gis mais euh, ba participer ci ambiance bi sax. voilà parce que parce les joueurs également ils ont besoin du lan moo tax lan moo lan moo tax. exactement waaw lan moo tax. wala nga saaga. ah waaw eh lan moo tax Augustin Senghor saa yu entraînement jotee. quel soit loo ko mën a wax. bu rek mu teg chaise am toog Ablaye Sow toog fii ministre bi toog fële ñoom et pourtant ministre bi mënoon na ne non man du ñëw. waaw damay dem toog fële def comme kii mais day sol blouson la ñuy sol ñoom. Hmm. blouson blouson lañuy sol ñoom toog def nii. waaw ah, léegi Cheikh xaalis pour xaalis euh, euh, coach yi doon euh, jàppale Aliou Cissé ci superviser seen adversaire Sénégal yi ñoom baa bokk na ci ñuy jox. waaw ñoom jox nañ leen. d'accord ñoom. Mhm. jox nañ leen. li leen fédération wax. Mhm. ci supervision bi. Mhm. fédération jox na leen. non prime yi Macky Sall joxe la. non non non yooyu ñoom non non waruñu ah, ci am ñooñu am nañ solo de. waaw waaw waaw am nañ solo doo dégg. Mhm. Euh, euh, mais c'est que am na ñeneen euh, kii Moustapha bien vrai que. Mhm. ñu bëri damay dégg ñu naan non ñooñu ñu see bokk ñu ci délégation officielle bi waaye ñu mhm. man dama jàpp ne ñooñu dañoo war a am. Macky Sall bu mu fàtte ñoo ñan la muy arbitre les quatre arbitres yi demoon là. mais non sincèrement ñooñu. dañoo sëggal Sénégal. suñ leen joxul cinquante millions ñaari kër sax ñu wut li leen jox voilà ñu jox leen ñooñu dañ leen wax a jox man loolu la arbitre yooyu il faut que ñu xool Macky Sall parce que nga Macky Sall day bàyyi loolu na ñëw moom mu jox ñëpp comme que mais vraiment ñu doon superviser suñu adversaire yi war nañoo. non <coughs> quatre lañu quatre. parce que superviser adversaire dafa solo. <coughs> Euh, euh, y' a quelqu'un qui me dit que y avait Amsatou Fall. Euh, Bassouare Diaby. Sëñ Saliou Sëñ Daaf. Malick Daaf c'est quatre. te ñu war a am lañ. non. moo gën. parce que ñooñu ñooy wax Aliou Cissé ne ko Égypte fii la faiblesse am nekk fii la force am nekk. kii fii la nekk non non doo dégg mais Moustapha jox ñooñu sax moo euh, gën a yeeyu jox ñi coach wax nañoo. tëdd hôtel waaw moom laa lay wax. wala ñi di réclamer. Mm-hmm. jox sax moo gën. Macky mm-hmm. Sall dafa war a woo ñii. bu mm-hmm. bu Macky Sall loolu moo tax ma ne gis nga liste bi dañu waroon xool kenn comme yow li nga wax ki am njëriñ ñi am njëriñ dégg ñi am njëriñ. Mm. ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñoom vraiment amoon nañ fa njëriñ. Ah. nañu bàyyi mm. loolu. Mm. football li nga xaalisu football bii dégg nga waxuñu toog dégg nga di koy di koy di koy di koy dégg nga di koy jox ay yaama neex. Mm-hmm. amul yaama neex nañu jox ki ko mérité moom mu jël ci xaalisu football bi parce que xaalisu football bi nañu waxante dëgg xaalisu contre xam nga xam nga euh, mun nga wax lépp. man man contre man dama contre politique gu Macky Sall ci euh, ci sport. sport waaye gis nga. def na ci def na ci équipe nationale lu bari. équipe nationale bii Macky Sall li mu ci def. xaar na ci tànk nañu toog hmm. xool. Hmm. Hmm. Macky Sall nee naa la nee naa la. boo ko waxee équipe nationale man de source sûre boo ko waxee euh, équipe nationale rek bu sax mu ne def leen. du hésiter. du hésiter waaw. mais parce que li mu koy apporter la. voilà waaw d'accord parce que équipe nationale gagné. voilà lu ab lu bari lay apporter la mais léegi Cheikh Diagne. Mm-hmm. yaa xaalis boobu. nga xam ne mooy bi état bi jë jëlee suñuy poos ñun ñëpp. Macky Sall jëlee ko suñuy poos ñun ñëpp mm-hmm. jox ko gaynde yi. Mm-hmm. man je pense sax amul mérite parce que suñuy poos la du poosam. c'est li ñu jox Sadio Mané. ñun ñoo yóbbu sunu alal pour am li ñu am. waaw eh, d'accord waaw. li gaynde yi demee yëpp. suñu xaalis la. Mm-hmm. donc amul mérite. Mm-hmm. mi ngi mel ni rek yéen ñi ngeen dajaloo woon jox ma may denc. Mm-hmm. su ma joxee du sama mérite. wallaay méritu yéen ñi dajale la. comprendre li ma bëgg wax. benn ñaareel léegi li ma bëgg a xam mooy xaalis bi nga xam ne moom la ñu war a jëlee ca kaf ak bu ñu qualifié coupe du monde yàlla nañ qualifié. léegi est-ce que comité exécutif fédération xalaat na ci nan lañ ko war a dépensé. mooy loolu moo mooy. Euh, wa commencé ci deux millions deux milliards huit cent yi yi ñu gagné ci gàncax déjà. waa yooyu déjà ñu ko war a dépensé. voilà loolu nag. parce que Macky Sall moom prime moo ko moo fay donc fédération fayul prime. oh dama moo ko fay. dama ne lépp. moo ko fay moo fay tout mën naa ko wax de source sûre nañu ñëw. je même ma ma ne amul même même sax. même sax soble ba sax soble boobu ñuy dagg sax <laughs> Macky laa ko fay. moo ko léegi xaalis bi ñu fa ñu koy def. ma ne voilà loolu nag moo jar a wax nag loolu. duñ ko tabaxee hôtel bi ñu doon moom laa lay wax gis nga gis nga gis nga Moustapha. Uh-huh. foofu nag laay xaaree ñoom Ablaye Sow ak ki ñoom Augustin ki ñoom Cheikh Seck ki ñoom ñëpp fii laa leen di xaare nag man. Hmm. dëggal la gagné nañu. Coupe d'Afrique loo xam ne musuñu ko am jaa jëf ngàcce ngaalama yéen ñii. Hmm. bravo bravo waaye nag hmm. koppar gi. ni ngeen koy utiliser. Mhm. parce que amoon na fi koppar goo xam ne ba léegi kenn xamul. Mhm. parce que man bëgg naa ko laaj Augustin wala Ablaye Sow bëgg naa laaj ma ne leen. Mhm. koppar googu ñu gagné woon deux mille dix huit. ca coupe du monde ba. ak deux mille dix neuf finaliste coupe d'Afrique ak suñu junior yooyu final woon. waaw ñooñu ana koppar gi. luñ ci def luñ ci def. lu bët mën a gis lu bët mën a gis lan nañ ñu wax nañ ñu wax il faut que ñu ñoom ñu def. Euh, maanaam kii. Euh, euh, parce que fédération fédération sénégalaise bu football. tabaxul siège FIFA moo ko tabax. waaw tabaxul stade état bu Sénégal mooy tabax. stade yi waaw waaye léegi ñoom lu ñuy tabax. moom laa lay bëgg a wax merci c'est ça gis nga loolu. Moustapha loolu mooy question bi gën a am solo. tey mhm. parce que Moustapha. Mhm. l'argent du football doit revenir au football. c'est ça aujourd'hui le problème nos clubs la dëgg la club. Mhm. waaye au moins war nañ ci sant titre bi. Mhm. club yi dañ ko war a sentir mais mais mais coach est-ce que bu ñu jógee woon ci kaan bi waruñu woon wax euh, xaalis boobu nga xam ne ni tey jii gagné nañ ko muy deux milliards et quelques yi mhm. que ñuy wax ay primes. est-ce que euh, prime yi ñuy wax ni euh, boobu ba tey ñoom ci la ñuy communiquer est-ce que mënul suul sax xaalis bi nga xam ne moom la ñu bi ñu bi ñu joxee coupe bi. yow la. xaalis bi ñu gagné. <laughs> deux milliards et poussière yi ñu gagné ci kaan bi ci kaan bi nii ak coupe bi <laughs> est que ma ne wax ji ñuy wax waxi prime yi ñoom ñu ngi wu ci prime yeeg coow li mu am yëpp <laughs> est que mënul suul waxu euh, deux milliards et poussière yi comme ni nga koy laajee da yaa ngi leen ciy xaar moom laa lay wax dama ne la hmm. wax bi de man kenn du ma divertir peut-être ñu divertir ñeneen waaye man mii man mii man maa ngi xulli samay bët man dinaa laaj buñ ma jéppee dinaa laaj hmm. buñ ma bañee dinaa laaj ñoom xam nañ ma xamante nañu man dama leen di laaj ku ci nekk damay ñëw toog laaj la démb ba Ablaye Ndour aadama euh, Ndour bi doon wax xaalis xaalis dama ko invité mu daw maam parce que moom bi am na ñu ma ko bëggoon laaj bu toogoon fii waaw am na ñoo xam ne dañuy nekk de mboom mboom mboom ah mos nañu laal am na ñu laal laaloon ana lu ñu laaloon buñ ma tax a de <laughs> am na lu ñu laaloon. yow invité am na ñoo xam ne dañu laal sañu ñu ñëw taxaw ak man danaa ne eh yow année bii am na loo laaloon tàng laaloon. Cheikh Tidiane Gomis moom affaire xaalis bi rek te ñeneen ñi kenn du dégg ñu wax si yow dong yaa si damay béy sama waax nañ ma jéppi très bien dama béy sama waax man lu ma ci dégg muy noonu lu ma ci dégg luñ ma xas muy noonu waaye dama ne man damay béy sama waax su ñoom seen la xam nga gis nga man gis nga man ma lu ma xaritoo ak Moustapha Moustapha lu ma xaritoo ak moom nee naa la je le revendique man fii dama koy wax fii yéen ñëpp xam nga je revendique mon amitié ak kan je revendique mon amitié ak Matar Ba ak Matar Ba je revendique mon amitié ak Ablaye Sow waaye maa ngi moom benn boo waxee benn ma lay fukk nekko ko def nga lii def nga lii laaj ko. wallaay laaj ko. Mhm. moom bi nga xam ne au moins nga moom moom na taxaw moom rek ay taxaw. war di naa la xamal leen nag bu Ablaye Sow bu ñëwoon fii. déedéet. Adou moo yor li mu ragal. yii Ablaye Sow eh, eh. Ablaye Sow dafa ñeme moom. Eh, <laughs> waaw moom tam du wan baat de te ñeme na ñeme na xaw ma lu tax nga invité mënu ko invité ñëwul. non moom ñeme na wax non non non non moom dinaa ko invité. moom non moom dinaa ko invité Ablaye Sow. dina oh, ñëw taw ah, ah, non waa dëgg la waaw loolu moom dëgg la. moom ragalul waaw moom Ablaye Sow de ragalul. taxaw ñu daaneel boo ko laajee mu wax la. Uh-huh. bu kee mu na la waaw bu kee mu ne la déet. Uh-huh. ngeen wax fii ba suba maa ngi moom mës nañ fi de am benn euh, émission boo xam ne. Euh, kii euh, suñu concert bi nekkoon kii fële kii Aydara xaw ma lan Xadi Aydara. Xadi Aydara waaw bu kii ba. RTS Xadi Aydara mu ne ma. Hmm. Gomis ngir yàlla ak yonent ba yow ak kii ab Ablaye Sow ci plateau. Ah. bu mu amati parce que yéen ñaar <laughs> yéen ñaar du jàmm. d'accord non mais c'est il faut que kii il faut qu'on pose ces questions la ah, ah, ces questions là il faut que ñu xam ko. léegi bëgg ñu def ci xaalis boobu. man xam nga dafa am loo xam ne xoolal premier mhm. ah, euh, ah, ah. Euh, kii euh, kii football mhm. muy sport discipline boo kii mhm. premier premier boo gisee premier article xam nga mooy lan terrain nañu lijjanti loolu nda fu nekk nga xam ne am na fa club maanaam département bu nekk ñu dem fekk fa benn stade. defaraat ko ba mu baax. d' accord dégg nga loolu ma man loolu. d' accord ak club yi jox. mën naa suqali suqali. sport bu Sénégal. loolu fee la ñuy jaaree di la tàggu di la bàyyi nga tàggatoo. waaw tàggatoo ñëpp di wax ne. Mm-hmm. Euh, Damas Adama Ndaw comme d' habitude. Mm-hmm. kontaan lool ci moom. tata Damas ñu ngi koy nuy bu baax a baax. di bëgg ci moom. kontaan ñëpp ñuy jaaree daal kontaan ñëpp ci jëli sunu mbokk sport.